ñu ngi daje fii ngir euh, inaugurer siège coalition avec liggéeykat yi avec Amadou Ba 2024 si ndigalu wala si encadrement suñu coordonnateur Cheikh Omar suñu secrétaire général Demba Makalu ak parti yi ko regroupé yëpp tey ji ni coalition avec Euh, amadu Ba dafa nekk coalition bi day liggéey exclusivement ngir amadu Ba falu ci 2024 tey nag ay parti ay mouvement ñi ngeen gis ñi ñëpp ak ñi nga xam ne ñoo nekk salle bi ñëpp ay responsable parti ay responsable mouvement lañ dem nañ élection am nañ ay conseillers te tey ñu ngi nekk di liggéey ngir Sénégal ñooñu nag ñoo dajee na ñun ay valeur la ñu incarné ngir Sénégal dem kanam ñu si bëri tey li leen intéressé mooy ñu jël Sénégal teg ko ci loxo yu wóor moo tax tey coalition boobu noonu tey dajee tey signé benn chart charte bu nga xam ne bu nga xam ne dafay wane ne képp ku tënku ci coalition bi rek da ngay liggéey ngir Amadou Ba falu mais loolu lan la mbébét Amadou Ba falu mooy continuer li nga xam ne moom la fi président Macky Sall commencé ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moom la fi def yemewul ci kenn boo ko méngalee ak fi mu jëm ñi fi mu nekkoon wax dëgg yàlla tolloo ak mais li ci ëpp solo mooy ñu jëm moom fi ñu jëm ak moom mooy kim ñu joxoñ kim ñu joxoñ mooy Amadou Ba mi nga xam ne li fi Macky Sall def moom dafa bokkoon ci ñu ko liggéey Amadou Ba boobu noonu nag tey moom lañ ñëw parti yëpp ak coalition yëpp de façon désintéressée du leen ne nañ ko jàppale ko jàppale ko ngir tey li nga xam ne moo nekkoon défi infrastructure défi électrification defi désenclavement Macky Sall le président Macky Sall def na ci lu am solo Amadou Ba bi nga xam ne moo commencé woon ak moom liggéey bi mooy ñëw jàppale ñu relever d'autres défis yi nga xam dafay mel ni immigration foofu ma profito wax ndaw yi ne leen fii laa jugee jàngi ba ma jàngee commencé naa liggéey Europe mais damaa gëm Sénégal ñibbi Sénégal commencé salaire soixante-quinze mille di góorgóorlu góor góorgóorlu di góorgóorlu ba tey wax dëgg fi yàlla macha allah amul salaire bu ma mën a génne waa réew mi li nit ñi di accepté di def fële ndax bu ma fa nekkee raxas naa bool def naa sécurité baare nit ñi naa def naa lépp te ñu bëri doon lañ am na ñu ma doon jàngal ci loolu la ñuy def ku fi dem la fii nag boo fi toogee bu fekkente ne entreprise bi ngay créer dafay raxasatoo wala entreprise bi wax ne da ngay dessiné damay jaay wala damay am magasin ciment wala damay bay ak projet yi nga xam ne ñu ngi fii te ñu mettre ko en place ak le candidat Amadou Ba bii taxaw ne man su ma ñëwee candidat jeunes yi laay nekk defi yu bëri romb nañ ko ak pétrole bii di ñëw jàpp ne Sénégal boobu buñ ko tegee ci loxo Amadou Ba wax dëgg fa yàlla jeunes yooyu jaratu ko ak yeneen défi ak yeneen défi yu nga xam ne tey continuité bi nga xam ne le président Macky Sall ak la coalition Benno Bokk Yaakaar ak la coalition avec kat yi bi nga xam ne tey moom tey moom ak Benno Bokk Yaakaar ñoom kese ñoo nekk si coalition yi xam ne ñu ngi dund ba léegi ci bu jógee élection locale yi nit mën nga am sa parti tuddee ko coalition waaye coalition bu nga xam ne moom mu ngi dund ba léegi te ay parti bëri ko dafa coalition avec liggéeykat yi coalition benn bokk yaakaar ñaari coalition yooyu bu ñu àndee ñu def liggéey bu am solo ñii nekk fii ànd ci coalition bi amal nit ñi njariñ wàcc sur le terrain wax ak nit ñi yegg si nit ñi wax ak ndaw yi jàpp naa ne Amadou Ba dinañ ko fal te loolu mooy li nga xam ne mooy njëriñi ëllëgu Sénégal. par rapport à cela Amadou Ba dañ xool parcours am xool charisme euh, Euh, niteem xool euh, connaissance am de l'état ñu xam ne kii nit ku baax la ku mun a jëmale réew mi kanam la ci lañu ne ñun Amadou Ba mooy suñu candidat donc moom la ñuy jàppale waxtaane fi ku ci nekk dem ci terrain bi sensibiliser xale yi sensibiliser jigéen ñi sensibiliser groupement de femme yi pour xam xamal leen ne Amadou Ba est le meilleur choix ëllëg ak si biir bu jëlee réew mi suñu naqar dinañu dëddu Macky Sall def na fi lu mu fi war a def yëpp mais dans tout organisation amul ñàkk lu fu manqué woon dinañ xool analyser diagnostiquer euh, les dix ans de Macky Sall lu mu fi jot a def lu ci yàqu ak lu ci baax li nga xam ne dañ ko war a joyanti itam ñu joyanti ko pour gën a jëm kanam. Macky Sall choix de raison la am dans tout rassemblement nag du ñàkk am ñoo xam ne ne nangu naa li wala nanguwuma li mais majorité bi ànd naa ak moom mouvement yi nekk ci gannaawam lu mel ni avec. nekk nañ ñoo xam ne dañu maye le territoire nationale Sénégal yëpp la ñu nekk di def liggéey bu am solo donc ñun yaakaar nañ Amadou Ba mun na gagné au premier tour l' yi mooy nañu mouiller le mayo wàcc sur le terrain xamale kan mooy Amadou Ba ak fu mun a jëmee réew mi buñ ko defee dinañ gagné au premier tour incha allah